am yow tey dèjà dëkkale nga ko fenn maanaam ñii nii lañ koy defee ñii nii lañ koy defee ñii nii nii lañ koy defee du dëkk mais ñun gëmuñu loolu quoi xam nga lu tax parce que ñoom ñi créé Moussa yaa mun na créé comme ñoom li ñu créé mën na teg ay code. mais pas nga bu code yi. non pourquoi non non ñoom non déggoo li ma la wax de xam nga tey tey boo demee ci euh, maanaam euh, tey constitution bi par exemple ci article yi. constitution non non non dama lay jox exemple rek non exemple laa la jox quoi mm. parce que xam code nga wax loo gis dañ ko tëral n'est-ce pas ko tërëb mais léegi tey boo fa trahiré benn article par exemple tey am na lu war a tegu sa kaw n'est-ce boo demee ci diine aussi noonu la sérieux lépp loo def loo xamante ne méngoowul ak euh, li nga xamante ne moom la ñu wax daa am lu ñuy teg sa kaw n'est-ce mm. mais rab maanaam comme trahir bi ma trahir rab nii lañ lañu war a teg sama kaw kan yow waaw ah. ça veut la war a génne si rab bi dama war a génn ci rab bi. waaw kan moo koy génnee si rab bi bo ñi nga xamante ne ñooy rappeurs yi wala yow sa wàll bopp. ñoom ñoo wala wala ñi nga xam ne ñooy déglu ñu ne yow de toute façon. xam nga xam nga boycott bu gën a mag si si chanteur mooy ñi nga xamante ne ñooy déglu consommateurs yi. suñu gisee ne ngay def ñi nga xam xaaral la ñi xamante ne ñooy ay adepte rab. par exemple man ma ne bon man euh, adepte rab laa damay déglu rab. mais waa ji gis naa ne Moussa mi daal Moussa mi yaa daal nekkatu fi parce que li nga xamante ne moom ngay def méngoowul ak par exemple je peux dire ça ak ah, euh, du ma la du ma la déglu ma dem déglu beneen rappeur. rappeur léegi pour vous départager pas Malick. Hmm. pour pour ma woon la ne mussa moo fi nekk. mussa defal ñu benn freestyle au moins ñu xam fan ngay fan lan lan fan ngay fan ngay waxee quoi yow yeah demal ci rim yi na nga doon jinne MC malaaka coy ci rab bi dox ngeen may daw ba ak ci rab bi yéen na ma ndam li fexeel ba ñam li bool siis seen saan nga giifal M6 yéen ngi sa peela daara la peela ñëwal ma peela dëgg bu fi ngee dokk laa lay jox dox xaaw baa moon si faada caat cakababs mag si crazy kanabas di awason bi xuufu lookar anagas dëggiti kayti anabas mbaam ngeen war man alifas yee. mais li nga xam ne comprendre mu si dara. ah yee doo ko comprendre parce que dëgg langage la. mais dëgg xaw ma gan. mais ay léegi bàyyi ko ma expliquer la mën nga euh, comprendre ko. Hmm. non euh, du mat sax explication xam nga tey. asi ah, jar na explication kay. mën naa ne tey ñun lii moo ñu xaw a lii moo ñu xaw a xaw a tardé tuuti quoi. Hmm. maanaam tey émission bi mën na jël. beneen débat boo xamante ne am na débat bu ko ëpp solo. parce que. ah tu penses débat solo non non non bu ko ëpp am na solo. ok non du duñ fa yegg. duñ fa am na solo su amul woon solo. duñ yegg foofu demee nii.